bismillahi irrahmani irrahim wasalli allahuma wasallim wa barik ala abdika wa rasulik nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajmain maa ngi ziyaar mbokk yëpp di leen nuyu di leen wax asalaamualeykum waaw macha allah di ñëwaat ak yéen ci bind yi nga xamante ne mooy tajwidul quran tey nag dinaa liir ay saar bàyyee ko mbokk yi mu ñu ñi ci tontu bi xam na eh, macha allah gars yi ñu ngi ñu ngi siifar wala siifaruñu bu ñuy siifaree alhamdulilah bu ñuy siifaru rek ma wax yow ma jërew Mouhamed Lawson maa ngi la koy adressé directement nag ak sa gars yi niroog yow su ko defee ñuy góorgóorlu kon ñuy toppal def mu taaba leçon yi dina jàng quelque ay suuraat yu gàtt rek ci bind jéem sàkku ci mbokk yi lan lañ ci trouvé ci ay ahkaam moo xam ahkaam yoo xamante ne eh, ahkaamu tajwid eh, ahkaamu eh, izhaar la wala ahkaamu idgham la incha allah ndax damay bëgg rek balaa ñuy sore rek ñu def yeneen exercice yoo xaw metti rek ñu koy def ndànk-ndànk rek bu ñu amee ñaari at yu ñu jàng rek ñu def ci ay tamarin maa ngi tàmbalee ci wenn saar di ko liir di ko bàyyi ci biir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 wa amma bi nicmati rabbika fa haddith donc Wadduha gi noonu gis naa ci ay àtte waaye comme fi ñu jotagum njàng mooy izhar ak uh, idgham gis naa ci gis naa ci àtte gis naa ci àtte izhar fan la nekk ci saar bi mbokk yi nañu dugg leeral ma ko mu leer ma dem ci beneen saar بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقد ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب كوكتا من غونغ هولكو بوتي غيسه ات ديغنتي ازهار إدهام nga بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الامين لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم رددناه اسفل سافلين الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غير ممنون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 كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر salamun hiya hatta matla'il fajr waaw macha allah mbokk yi kon ayat yooyu bala saar yooyu ma jàng lu ko dalee wadduha alam nasra wa tiini iqra in anzalna muy juróomi aaya juróomi saar yoo xamante ne jàng naa ko amul sikk ne boo gëstoo ci biir nga topp audio bi di nga ci suivre di nga ci gis ay atte idham ak izhar fan la ñu nekk ci biir saar bi ah loolu soxla naa ko ci mbokk yi nag maa ngi leen may ay minute ngeen réagir après ma tëj insha allahu wa taala maa ngi leen di déglu asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk groupe Rahma ñoo ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp alhamdulilah macha allah ah, imam imam Pouy macha allah alhamdulilah sa dars bi moom ah alhamdulilah ah, waaye comme daal dañ ñoo joxoñ ah, bëgg ñu participer ah, dañ jéem a jàpp ci dañ ci jéem jàpp rek ñu jullit moom <coughs> amul rëy moom ñu jéem a bokk rek incha allah alhamdulilah waa léegi ñu génnee ci idham yi ak izhaar yi ci li nga laajte rek waaye baat bi neexul tey de. fan yi moom baat bi moom moom macha allah mooy loolu rek eh, dinañ jëm a <laughs> def lu ñu mën rek <laughs> eh, waaye dañ ci boole wale oustaz yëpp nag commencé par oustaz Cheikh Gueye <laughs> eh, jël ci iw oustaz oustaz Samb waaw ah, nga dugal leen ci ñoom ñëpp ak yeneen oustaz yëpp ñu ñuy làqatu wax ñu génn ñu feeñ nga dugalee ñoom ñëpp ñu génne idgham ak izhaar yi ba fay tari nag ñu dégg leen nag waaw amul baat baat bu naq rek baat bu neexul moom ñu ñëpp <laughs> ñu jéem a bokk def ci suñu ñu bokk ci rek incha allah jàppale ci gone yi jàppale ñëpp aussi rek xam naa am na ñoo xam ne dañu am kerse gi waaye ñun moom ñoo bokk ci incha allah. asalaamaaleykum wa rahmatulah groupe wa rahma ñoo ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp xam naa imam Pouy. waaw xaaral ñuy dugal dugal si suñ participation rek waaw xam naa duñ ci sore de sànq la woon mi ngi dugal audio lañ wàcc waaw ci lañ déglu sa kii bi ñu ne xaaral ñu jéem dugg rek waaw léegi waaw ñu jéem a génne tuuti mm, eh, izhaar yi ñu dugg ci saar bi nga jàng neen wadduha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 ما عنون ساكنة ومي موجان يتنهر ينجم نون فوف ساكنة حابي موجي مونك تكلمم وليك بمانيو تي اي بي تي اقرأ بسم ربك الذي خلق كون يانج جانج في اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق kon foofu am na izhar ma nuun saakina tamit mooy fi nga jën xalaqa al insaana min alaq mooy min am na ayin foofu ci kanam kon nuun saakin moo jiitu kon foofu daal oustaz bi maa ngi yemandi foofu nag <laughs> eh, maa ngi yemandi foofu beneen waay baat bi moom fu deni ma jégal ma ko rek <laughs> waaw ah imam puy waaw léegi moom danga dama yem foofu rek xam naa da ngay jël foofu ñoom ñoom yi rek ñu bokk ci nga jël ñoom Cheikh Cheikh Mbengue ak ñoom Seydina Pouy <laughs> ak ñeneen ak ñeneen ñu fa nekk ñi làkkati ñoom Cheikh ñoom Cheikh Cheikh Guèye waaw imam yi waaw jële imam yi ak ustaas yi nekk foofu imam yëpp waaw ñoom imam Touré sun gan gi ngo <laughs> ko ci nañ nañ ci bok inshallah assalamu alaykum wa rahmatullah mais law san macha allah yow yow kay da nga làkkatu rek da nga bokk ci gaay da nga bokk ci gaay lakku yi rek mais macha allah mais macha allah yow ràññe nga bu baax ni la ko bëggee parce que té dafa may encourager man mi jangalé cest à dire eh, bu ken rouss parce que haya fi al ilmi amul ham ham. amul kerse dañuy jang rek même bu fekkante ne sax am loo ci mën a dimbalee xale yi nga xamante ne xëy na ñu ngi suivre ak yeneen jigéen yi nga xamante ne dañu comprendre bu baax parce que mun na am tamit yow miy participer sax yaay a comprendre a mën a eh, indil leeraange ki ko doon déglu maanaam bëri na ki nga xamante ne mooy déglu sax moo gën a mën a jottale sax ki nga xamante ne moo def loolu yëpp mu ngi ci biir parce que doomu aadama yi yàlla jox ku ci nekk rek lépp ba mat dafa am lu muy xañ kële mu jox la ko am lu mu la jox kee mun naa def leson bi mun naa am ñàkk am fasaha bi mais am ku duggul participer Eh, indi ci ay yeneen aayaat wala aaya yi nga xamante ne jàng nañ ko mu indi ci ay leeraange yoo xamante ne wallahi mooy gën a leer sax macha allah te ci la nit ñi di gën a jariñoo su ko defee kon wax naa ko léegi kon eh, participer bi daf ci daf ci daf ci gérul bu rëy dal daf ci gérul bu rëy bu dul dara sax ki koy jàngalee day day day gën a sawar day gën a sawar eh, te loolu kese lañu solo ci groupe gi nag wax dëgg yàlla ku ci nekk rek li ngay jàngale mu nekk luy dund luy alimenter luy luy animer. ba kiy déglu ku ne saa seen na mu ciy gis boppam daal xëy na sax tamarin ñi may commencé laaj ñi sax xëy na xaw na xaw na teel sax waaye yooyu du dara du dara du muy rek de cokutaan gaay yi rek xaw leen xëcc tuuti waaw ñu ànd ak man ci ci ci darsu yi daal parce que te bu bu yëg nañu ñu ànd ak yow rek toujours rek da ngay am yeneen comportement yeneen kii ah, sawarte yeneen eh, eh, dogu yoo xamante ne da koy def ba mu gën a rafet lool lool lool lool lool te gën a jekk. te su boobaa rek ci la njëriñ bi di gën a matee yàlla nañ ci yàlla jàppale nag jàppale leen ci nag macha allah maa ngi kontaan lool de maa ngi kontaan lool Lawsan. wallaay comme ni nga ko waxee rek macha allah eh, ustaas yi eh, imaam yi fi nekk ak ñoom yëpp rek ñoom nañu ma ci gungaale parce que te xam-xam la boo xamante ne dafay dafay aajo participer yu bëri daal. parce que ci ci biir participants yooyu dafay nekk yeneen leçon encore yoo xamante ne daf ci juddoo yeneen xam alxuraan moo toll non moo rëy eh, dañ ko wara saytu ci qiraatan wa tadabburan wa tafsiran dañ ko wara saytu ci eh, façon ni koy njàngee ak setantal bi ak tafsir bi yépp rek parce que tam risala bi nga xamanteni mo yalla subhanahu wa taala kon eh, ku ci nek di ci nab-nab rek ku la ci jappal rek nga jël man damay jël bu baax a baax kon mang ngi lay gërëm bu baax a baax yon non rek de Eh, yoon waa nga noonu rek de gars yi def leen comme Lawsan waaye def leen comme Lawsan jigéen ñi ak góor yi xale yi mag yi ndaw yi maa ngi leen di woo waaw ñuy suivre nànk-nànk rek parce que te ah, yonent bi day wax na ko de laysa eh, minna man lam yataganna bil quran aw kama qaal dafa ne bokk ci ñun dégg-dégg bokk koo xamante ne bu jàng alxuraan du ko tajwid du ko woy du ko woy du ko tajwid bi maanaam di ko def ay charte yi nga xamante ne nii la ko téere yi tërale comme koy jàngale nii bii nii kon ngeen góorgóorlu ci rek macha allah ñu ngi ci woo ñëpp nag ñu ngi ci woo ñëpp waaye law sax ni nga waxee de gars yi làkkatu ak yooyu yëpp nañu génn de képp kuy làkkatu ku ne rek la nga génne même benn audio sax boo xamante ne 30 secondes la sax man bëgg naa même 10 secondes sax baax na parce que yëpp may daf may soññ ci ci liggéey bi parce que te ñun ñëpp dañuy liggéey à distance waaw ki am émission bis tàngam mu ngi toog par exemple def ay émission am sànni ci biir man mi kasaar maa ngi toog sama rokk keneen noonu keneen noonu kon su fekkente ne nag ne eh, amul ay participants rek eh, dafa mel ne luy nelaw te man bëgguma mën a mu mel noonu daal waaw kon gars yi kon def leen comme labsan rek def leen man maa ngi déglu ba tey rek am naa ne comme defe naa amul leçon bu dugg nii eh, bu ñu bàyyi noonu kii bi mu xaw vide rek ah, gars yaa ngi fi macha allah ku ci am benn jot bu ndaw rek nga sànni dara. ci cadre bi ñuy doon jàngale nii rek xëy na beneen ñeen keneen mu amee leçon tamit bu ci la posé question ñu dugg ñu participer incha allah comme ni ko comme ni ñu koy tëralee rek daal macha allah macha allah waaw kon kontaan naa de continuer leen waaye continuer leen Lawson war na yoon bi de Lawson ubbi na débat bi ubbi na yoon bi waaw bu kenn xeeb dara daal bu kenn na may man de aw ma xamam déedéet ñëwal lekk ñëwal lekk kenn du fi yedd kenn ñun dañuy jàng rek dañuy jàng rek macha allah. alhamdulillah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki groupe Ar-Rahma nu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen baalu xaq te di leen baal xaq macha allah baarakumullahu fikum di nuyu mbokk mi nga xamaloon ilqa dars bi xam naa xaw nañu rëcc waaye dégg nañu kàddu lawsan gi ak leeral gi macha allah yaakaar naa suma jumut ñu ngi doon wax ci wàllu xuruful izhaar yi yi nga xamante ni ñëw ci alquran pour man ci joxe ay amsila macha allahu taala seen mbokk la Oustaz Cheikh xam naa ci pour tënk rek incha allahu taala di leen jégalu nag bu baax ci njuumte yi ak rëq-rëq yi fi war a feeñ macha allah wa alhamdulilah xam naa mbokk mi darsa bi macha allah am na luñ ci déglu waaye pour joxe ci ay misaal incha allahu taala dinañ jiim. pour jàng yenn aya baada a'udhu billahi minash ashaytaani rajim bo xolé lu melni nii baatu tasla naaran xaamiya naaran foofu izhaar la li annahu lu tax alxaau min xuruf al izhaar xam naa loolu pour gën ko gaaw a euh, dabtu dana ci am solo maanaam ñu xam yan ñooy xuruful izhaar euh, xuruful izhaar yi dañ koy tënk ci hamzatun fa haun summa aynun xaaun muhmalataani summa gaynun xaaun dañuy wax ni yii xaraf yi xaraf macha allah su nekkee ci kanamu euh, maska yi dees koy izhaaral lu mel ne xarfu haun muy halkubeer su nekkee ci kanamu araf boo xam dañ ko maas moo xam maska ba eh, ñaar ñaari maska la ci kaw muy fatxatayni wala mu nekk kasratayni wala dammatayni su boobaa dañ koy izhaaral lu mel ni eh, eh, xarfu aynun ayin moom it kazalika noonu min xurufi izhaar حرف حاء من حروف الإزهار حرف همزة من حروف الإزهار حرف غين مؤمت من حروف الإزهار حرف خاء مؤمت من حروف الإزهار سنو قول حرف yooyu آه، جروم naari حرف له mu nekk xuruful izhaar yi nga xamante ni juróom benn xaraf la muy xuruful izhaar yi nga xamante ni feeñ na ci biir téere bi bu ko defee macha allah mu ngi noonu ñu joxewaat amsila lu mel ne baada aus billahi min alcheytaan rajim falahum ajrun gayru mamnun waaw falahum ajrun gayru mamnun آه، لهم ميم بو خام دافا ام آه، ماسك السكون لوتاخ ني سكون كو موي الف دي حمزه دافا نيك تي كانامم تا من حروف الازهار لو ملني كاذبة خاطئة كاذبة خاطئة واو تين gis nga ko ñaari masque la ci suuf yu tolloo lu tax ñoom ñaar ñu def ko ñaari masque mu nekk izhaar li annal xaa min xurufi izhaar lu mel ni ba tey faman yacmal mithqaala darratin xayran yara gis nga moom it kazalika bu dee annuunu saakina moom ñëw na ay yoon lu mel ni ولا لملني وما من وما من غائبة في الأرض ولا في السماء أيوة لملني وآمنهم من خوف كذلك لملني إتمن إيه ذلك لمن خشي ربه ذلك لمن خشي ربه waaw macha allah mu ngi noonu xam naa lu lañ amoon lu kii rek ñu ngi jéggalu bu baax a baax xam naa dafa xaw guddi xëy na bu doon bëccëg gi sax dana gën a yaatu tuuti incha ñu ngi leen di jéggalu bu baax di jéggalu suñu borom salaamaaleykum wa rahmatullah wa allah macha mbokk mi parce que indi na lépp ah nu ah, ngi koy fay waaye ñu ngi koy ñaanal la. waaw Lawson de moo ne ustaas nañuy génn rek parce que te xam nga xam-xam bi dafay nekk euh, xam-xam boo xamante ne Moustapha bi mu toll xëy na xale yi dinañ ko jéem dinañ ko xaw a des comprendre bu baax bien vrai que ñu ngay jàng ahkaam yi ñu ngay pratiquer masal ñu ngay tatbiq daal mais ku leen ci laajoon tey ahkaam yi di izhaar ak iklaab ak noonul musaddad ak yooyu daal xëy na mën nañ ko bañ a xam mais application bi moom ni ngeen ko gaay di saay ci daara yi macha allah ñu ngi koy jëf. mais yéen mag yi nag yéen yi nga xamante ne am ngeen ràññee da ngeen di dugg nag euh, ngeen di gën di leeral comme ni nga ko defee nii macha allah mbokk mi waaw xëy na xëy na sax laaj ñoon xuruful ishaar waaye dañu laajoon rek ay ci diggante ishaar bi ñu jàngal ak idgham kuñ ci mën kuñ ci mën indil ay qitaat ay dogit daal ci ay ayat mu nekk ay am amsila rek yoo xamante ne dina gën a leer. pour ñu xam rek nam ñi koy suivre mais ma sha allah ni ko defé non la parce que te indi nga huruf yëpp xam suñ fa xawoon comme ni ko waxee su ma xawee noonu bobu comme euh beuy bu gàtt bobu rek nga xamante moo tënk mboolem xuruful ishar fa tabarakallahu ahsanul khaliqin ñu lay jajeful ma sha allah ñu lay jajeful law sa comme ni ko waxee rek mom booy wax gaay di génn de ma sha allah jërëjëf jërëjëf jërëjëf. yal na yàlla fay leen aw yiw waaw xam-xam bi moom wax dëgg yàlla moom participation yi moom buy am nii rek eh, loolu xëy na sax boo waxuma ne xamuñu ko xam nañu ko macha allah mais participer day nekk tas ji day nekk soñu rek pour ñu koy def daal loolu kese laa ci jublu parce que ñun ñoo ko bokk bien vrai que ñu nga à distance mais ku ci nekk boo audiowee rek dañ xam ne di moo ñëw nii quoi mais di sant rek di leen gërëm macha allah macha allah jërëjëf jërëjëf ci leeral yi yal na yàlla faylaw yiw